tàng bu mu xëppoon pare bu sacrifier boppam affaire yooyu noonu lu toog di ko ëpp ba bër set jot nan kay jóob del naan ndox affaire yooyu jóob ne déet du naan affaire yooyu bu bëggee dem toilette ñoo koy jàppoo yéegal ko ma jël samay bagage mhm. tegal ko ci njëgënaay affaire yooyu ba keroog muy jóg ci li mu nekk nii mais franchement nit ku baax la mhm. boo ma fa feebaree sax moo xool xool xam ne amul feex mu dem boole ma ak Fadilou Keita moo tamit nit ku baax Fadilou tamit lijjanti ma ay garab dem ci major o oh, explique ko sama cas affaire yooyu noonu ba ma jaar si major mu ne ma booy yow yaa foo toj booy Fadilou li ma boole ak affaire yooyu ma ne ko non non nit ku baax la franchement Fadilou Keita xàmmee na ma bu baax. waaw eh, mais comme li may wax rek euh, jàpp nañ ma sama jàng xaw ma suite bi lan la maa ngi formation concours boobu ci laa yaakaar après maa ngi nii lépp maa ngi ko teg si loxo suñu borom. Mhm. d'accord kese. réinsertion sociale dafa nekk lu am solo rawatina ku ñu téye ay weer nga bàyyi njaboot bàyyi liggéey bàyyi lépp ñu bàyyi la amul dédommagement amul dara. déjà PASTEF euh, dafa am commission ñi nga xamante ne ñoo chargé commission sociale. Mhm. nuyoo Fatima Fatima Mbeng ak ñoom Adama Sima. Mhm. comprendre nga ñooñu détenus yi bi ñu leen jàppee ba tey dañ leen mës a taxaw. Mhm. di taxaw détenus yi di taxaw famille détenus yi ki si am xew wala torof torof lu la munti arrivé. Mhm. muy yow muy sa famille. gars yi dinañ dem assister la. Mhm. bu ñu amee information bi te mhm. information bi day génn ndax ci biir lay jógee ñu woo leen wax leen directement cas bi am na cas bee am na. dañ lay taxaw. boo yi nii maanaam suma naataangoo yi nii comme kii amoon na métier. kii. étudiant la woon étudiant woon. sànq pourtant waxoon naa ko euh, tantôt ci samay wax nee naa la loolu noonu mënul tomber dans l'eau loolu mënul échec day am sëgëm ci biir kaso nañ la mën a assister asma ci biti. dëgg parce que loolu ñoom dañoo am obligation def ko. Mhm. ñoom ñoo bëgg Sénégal baax dañoo aspirer jiite Sénégal ëllëg. pratique yooyu noonu day commencé am depuis tey. Mhm. mooy gis nga ñii ni mhm. surtout booy yu ndaw a ndaw yi ndaw mooy ñu gën a ndaw yi. mooy mineurs ñi ñun ñëpp jar nañoo taxaw. mais asma ñooñu. ñu boo leen bàyyee. seen ëllëg kenn mënula wax lu koy justifier. ndax gis nañu li nga xamante ne bokkul woon ak li ñu leen doon yaree seen kër. Mhm. buñ génnee dañ koy jëmmal wala duñ ko jëmmal loolu assistance la laaj. Mhm. nga mettre leen si condition yi nga xamante ne du ñu am temps bu bëri ku am temps bu bëri rek mun nga dugg ci loo warta dugg. Mhm. loolu sas la bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci ñoom te am naa njort ne dinañ ko def. vu seen comportement ñun bi ñu nekkee ci biir euh, lieu de détention yi. nee naa la dañ ñoo jox li ñuy lekk ba jox ñu ay yére. xanaa ñooñu deseewuñu ñu dara. gàcce ngaalaama quoi wax dëgg yàlla. bi ngeen bi ñu génnee kaso. Mhm. ñoom si seen i taxawaay ay cinquantaine de voitures ñoo taxaw ci biti kaso bi. Mhm. ku génn kaso ak foo munti dem. yóbbu la nga ñibbi chauffeur yi sax ñoo ñëw taxaw fooy dem. Mhm. lu musta am du jamais vu mooy sénégalais comprendre nañu gis na injustice. doo ko fajee injustice. justice nga koy fajee. c'est vrai ñu tooñ nit nga ñëw taxaw ne ko dañ la tooñ. du yem ci wax nga pratiquer mhm. won ko ni dañ la tooñ mhm. noo koy wane dañ la tooñ mooy muy génn nga ñëw applaudir ko mhm. ne ko ñoo ngi lay épaulé ñoo ngi sa ginnaaw amut fu muy dem nga jox ko paas mu dem comme ni ñoom Diop doon def ci sa Diop wax si moom sax damay ne bëri wax la ndax ku génn bu ko waxul fii dina ko wax ci buntu kaso bi ne la jërëjëf Diop du dëgg mais noonu la si bëree morom am na ay centaine de Diop si biir kaso yi ñoom nit dof doon lim kenn ba si boo yu gën a tuuti gis nga yi famille la loo manqué rek. Mhm. sa moroom motali la ko. d'accord moom it lu mu manqué yow nga matal ko ko. Mhm. ñun loolu lañ fa nekkee barki yàlla ñun dañ doon jaamu yàlla. Mhm. te loolu yëpp kenn defaluñu teraanga boobu noonu ku dul président Ousmane Sonko mu sell mi du ma ñaan sax ndax yàlla def na ko ba pare élection yi da koy gagné. Diomaye mooy Sonko day gagné ci ndimbalu yàlla. <laughs> d'accord ñu ngi laajte bu fekkee am ngeen numéro yu a joxe directement yoo xam ne ku leen soxla daf leen ciy jot.

yow say téléphone moom dañ koo sele woon waaye bu fekkee mën ngaa génne sa numéro xaw ma sama numéro xaaral ma xool pis bu bees laa yor <laughs> hmm? waaw 76 euh, waaw 440 87 87 39. d' accord numéro yaa ngi noonu pour ñi nga xam ne bëgg nañu jokkoo ak ñoom euh, directement. li ñu dese woon ci waxtu jeex na naam sax du lépp la ñu mën a wax xam naa ne jeneen plateau yi il faut ngeen di jaar pour mën a wax yi nga xam ne itam des na yow laay bàyyi nga daal di wax sa dernier moo sant gërëm ñi nga xam ne bëgg leen wax ak ñoom. bon sant yàlla rek sama dernier mot euh, maa ngi leen di remercier yéen ñi ñëpp di la remercier yow. parce que mhm. am na lu bëri lu ma jàng fii. di la remercier Bas parce que nekk bi ñu nekkoon fee gis nga ki ngay gis nii. Mhm. amul lu mu ñu taxaweewul. Mhm. sama copain la xamante nañ bu baax. Euh, di la remercier yow aussi ci invitation bi. Mhm. pourquoi ma remercier la parce que gis nga da nga ma jox possibilité ma exprimer loo xam ne nii téye naa ko sama xol durant sept mois di la si remercier bu baax. di sant sénégalais. di leen naan Sonko mooy Jommaay. Mm. Jommaay mooy Sonko yaa ngi campagne de. nañu voté pour Jommaay. <laughs> di remercier sama yaay ak uh-huh. samay samay mag. parce que mm-hmm. taxawu nañ ma bu baax a baax a baax. <coughs> Mm-hmm. ma bu baax a baax a baax a baax di remercier Diop Taïf. Mm-hmm. Diop Taïf lu ma ko sant. doyul Diop Taïf jox nañu ñu lekk. Diop Taïf jox nañu ñu naan. Diop Taïf xeexal nañu. Diop Taïf braqué nañ ko ndax ñun. di remercier aussi Ben Taleb Sow. d'accord Ben Taleb Sow parce que ba ñuy nekk parc moo doon taxaw. jërëjëf. d'accord ñu sant bu baax euh, gërëm la alors Bassirou Diagne bi tey lan ngay tàggatoo rek. bon man damay gërëm sama mag bi ma nekkal suñu kër. franchement am ma fayam. Mhm. ak jabaram soo sonn na trop ci man. Mhm. franchement ba ma nekkee foofu seetaanuñ ma benn yoon ñu ma doon taxaw xam nga ay vrai patriote tamit. ay vrai patriote. yéen def ngeen ñëpp patriote léegi. def ngeen ñëpp def ngeen patriote ñu takk balaa ñu takkul ñëpp def nañ ñëpp patriote. vraiment vraiment vraiment aw ma fayam. Mhm. di gërëm aussi samay xarit. Mhm. samay anciens camarades de classe mënuma xaw ma daal la laa leen mën a fayee. Mhm. sonn nañ trop trop trop trop si man. vraiment aw ma dara dara dara dara lu ma leen mën a wax lu dul jërë ngeen jëf. di gërëm aussi tamit ku dinaa tudd turam xam naa bëggul ma wax turam tamit. Fatou Kébé waaw sonn na trop ci man. ba mu ñëwee taj moo njëkk dem tribunal moo njëkk wut permis visite. ba mu ñëwee damaa tiit seetaanuma benn yoon topp ma lijjanti avocat dossier ndeysaan mi ngi def examen dama koy ñaanal mu valide ko si jàmm di gërëm aussi sama waa koñ vraiment ñoom Modou ñoom sëñ Mbacke mhm. aw ma seen fay ba may nekkee foofu taxawu nañ ma ba ma ñëwee boo yëpp kontaan nañ boo mhm. yëpp ba ma fa nekkee dégg naa ñu mu doon def ay don di ma yónnee sama boy bi dem Canada ñoom baaba mhm. aw seen fay. billaahi su ma su ma su ma bëggee wax sa sama xol day tooy. di gërëm di gërëm ñëpp di gërëm sénégalais yi gis nañ taxaw ngeen ñu di gërëm aussi Diop encore une mhm. gis nga ngoone. waaw Diop mii nii man daal man yàlla moo ko mun fay. ko yàlla fay mais fay. Mhm. li tax ma koy répété nii parce dafa dawloo sama yaram ci biir dañ fa ñëw gisuñu papa gisuñu yaay mu représenté ñu comme papa yaay ci biir. noonu lay def tayif de. Diop waa tayif fekk ji naa ko ba dëkkam. Diop boo bëggee jot jikkoom rek laalal benn patriote benn jour am na benn grand Thieloo sama day ndeysaan mhm. ñoo bokk Kaolack. ndeysaan ba mu ñëwee ci néeg bi gars yi miite ko foofu noonu mu ñëw gars yi ne dañ koy aj ci kaw séerasse bi rek jóg. rek rek jóg si ne leen xanaa da ngeen dof. Mhm. kii magum jëmm kii dina yëg ci kaw état de santé baaxul. Mhm. gars yi nekk foofu jóg coob gars yi ñu génne ko néeg bi dama leen fanaane beneen néeg. après mooy loolu vraiment nit ku baax. dëgg la Diop Taïf. di gërëm aussi Fadilou Keita mhm. ndax ba ma feebaree tamit gis naa taxawaay saa yi ma doomee danaan i petit yaa ngi tane ma ne ko wéy maa ngi tane affaire yooyu noonu di gërëm ñëpp mhm. di gërëm tamit Ousmane Sonko di ñaanal Bassirou Diomaye Faye mhm. jarul sax parce que bu demee élection day man xaw ma kan de man moom mm. sama carte d'identité ni nii anam yaa ngi ko waaye man Bassirou Diomaye Faye sama carte d'identité moo xaw moom sama turandoo la Bassirou Bassirou. Mhm. kon ñaar <laughs> di gërëm Sénégal di la gërëm aussi yow Ngoné. di gërëm aussi sans limite. Mhm. parce que ñun duñu dof ba pare duñu ngaaka tamit. dëgg la ñuy sonn si ñun ñëpp gis nañ ko. Mhm. moo tax euh, ba ma jóob woowee damaa sori woon. yaa ngi war a woo ma ne damaa sori woon mais dama mujj daal may def yëpp ñëw. di sans limite wal fajiri. waaw vraiment ñooñu amuñ seen fay. parce que tout le moment ñu doon wax si ñun. keppaar geeg seen wareef lu ne. moo nekkoon la la indoon l'actualité de politique yi taxawu nañ mhm. ñu delloo nañ ñu njukkal bañ génnee tamit gars yi seetaan ñu benn yoon mhm. bañ génnee gars yi taxawu nañu te insha allahu rabi gëm naa ne nañu taxaw insha allah insha allah na leen taxaw bu baax a baax alors euh, Cheikh Omar Kassé yow laay bàyyi nga daal di tàggatoo di santaat yàlla bu baax a baax a baax mhm. jul si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy wéyjoor bu baax sama papa sama yaay sant sama famille mais en particulier sama mag Oulimata Kassé du sama mag sax kooku sama yaay la man sama yaay sama maam la sant Jeena sama cousine Jeena Mané mhm. Nene Marena mhm. ah di mhm. sant benn mère Tata Ndeye madame Ndiaye kooku xaw ma ko xamuma ki ko booleeg man xaw ma ko xamuma chaque jour mu may yónnee añ chaque jour doomam di ko indi ndey di leen sant bu baax a baax a baax a baax wax leen ni dinaa leen ñëw seet si incha allah di ñaanal président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. doomu ñaay kenn du ko ñaanal ngànde ñaanal ko gudd fan. Mm-hmm. mu sell mi yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin tenee bon xamal ni lii. Mm-hmm. Euh, lii yëpp dog-dog la rek léegi mu jeex. li lay libéré Sénégal lay doon. du mbaaxu Macky Sall du mbaaxu gouvernement am. mënuñu wax nañ ñu am na ñu leen jiiñ bala ngay tàggatoo ne yéen a ngi waxtaan waxtaanu guddi de. dama ne. Ah. mënuñ ñoom mënuñ laa bëgg ba libéré la. buñ la bëggoon duñ la dugal kaso. Sénégal moo lay libéré buñ la bàyyee tamit xamal du seeni mbaax pexe moo amut ñu bay la mhm. li ñu mës a gëm mooy Sénégal da lay bay mhm. te loolu mooy dëgg sénégalais ñu ngi taxaw de tout bord moo xam d'ici mhm. ou d'ailleurs ñoo ngi taxaw di sant askanu Sénégal seetaanuñu wax dëgg yàlla seeni taxawaay biir comme biti ñun ñu ngi koy yëg suñu tëdd kaso bu métti wut rek. Mhm. seen i taxawaay si biti moo tax. Mhm. man dama naan ñoom ñoo ñu gën a sonn. ndax ñu tëj sa xel. Mhm. moo gën a métti tëj sa jëmm. ñoom seen xel nañ tëjoon. ñun suñu jëmm nañ tëj. ndax ñun ci biir kaso bi. ñoo ngi tijji suñu xel di wax ak ay détenus. ñoom ci biir ci biti. seen jëmm moo ngi dox mais seen xel tëju na ndax chaque jour ñoo ngi xool ñun ndax ñoo ngi jàmm ci lool noonu di sant sumay morom ñi nga xamante ne ñoo ngi muy ataab Ousseyn eh, a kooku sama binom la. dëgg la kooku yow xam nga ma xam. quoi kooku sama binom la sama deret la. Mm-hmm. comprendre nga di mm-hmm. sant ataab mm-hmm. Lamine Diédhiou. Sagna. billaay ñoom Souleymane Ndour Lamine Ndour sama gars yooyu noonu. Mhm. Seydina. Mhm. dañ ko dóor bal si ñaari tànk yi. yàlla na wér ak jàmm. amiin ami. Mhm. maa ngi lay sant bu baax Vene. maa lay sant Assane Oje sama trondeur papa Amidou. ak jotaay bi yépp xam nga. wax dëgg yàlla di am kontaan di sant euh, sans limite. bu ma leen santee man sans limite pour man benn nit la woon sax. barki yàlla soo ma saan dégg sans sans limite man. ngóone rek laa gis. <laughs> dëgg la mais loolu yëpp day wone ni xam nga fi nga teg sa tànk ba askan bi jàpp la. Mhm. boo ko teggee rek gis leneen ku fàttali la faal folleeku. dëgg la da ngaa askan bi moo tax nga am lu kenn amut. continuer ci loolu loolu sas la quoi. askan bu la jàppee nii rek yow da am obligation maintenir sa position. Mhm. buñ la woon dara dara dara ndax jaroo. jaroo matériel. Mhm. lu ñuy jëndee ngor kese la. dëgg la dëgg kese la. di mhm. sant Walfadjri nga baal ma ko encore une fois. waaw sant leen bu baax mënu mënu ma koo ñàkk def quoi ndax ñun ku toog kaso rek. Mhm. yéen nañuy déglu. dëgg la yow bu ñu la gisee loolu fierté la. barki Seydina <laughs> Muhammad mais bu ñuy déglu Walfadjri tamit fierté la. donc alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan euh, jàmm. jàmm ji mooy loolu noonu xeex nañ ko day am incha allah. incha allah président tenez bon léegi mu jeex. yàlla xam na ko booy yi. nañ jàppoon benn tey a jàppoon liñ gënoon benn tey. waaw même parcelle génn na ci booy parcelle yi xam naa ne après dinaa jaar seen kër sonn na trop ci booy parcelle mhm. dem na waxam ma ci biir sax. na ma ay Basiru te moom ñun ñu génn sax moo ko gënoon moom mu génn. vraiment toog nañ télécentre moom mi ba mu feebaree moo ko doon taxaw. Diop si lay dox di ko remercier bu baax Diop. waaw. gis nga yow suñu rencontre moom moo ko ni nu mu si sonne. waaw moo ci sonn bu baax a baax. ay 9h la ma commencé woo. dëgg la dem ba tey mi ngi woote da ngay jàkkaarloo Ngone saa yi da ngay jàkkaarloo Ngone ma ne ko hey Ngone sama <laughs> sœur la. Uh-huh. mu ngi sonn. ak lu muy mën a wër a uh-huh. tey maa moom ñëw te moom ma indi oto muy Birane Birane Ndiaye uh-huh. ak euh, Aliou Aliou Aliou Aliou Samb ñu baax billaahi mhm. wallaahi taalaay mhm. seen oto nañ jël fi mu bëgg a dem ñooy ànd Diop fu mu bëgg a dem ñooy ànd yow gis ne ñoo ñoo gaarendo léegi ah, mën a jël si dara mhm. lu ñu may wax mooy Ousmane yàlla na am jàmm rek kese ndeysaan alhamdulilah ñu sant leen itam euh, sant leen bu baax yéen ñëpp gërëm leen ci